collection. waaw ma collection bi waaw. voilà léegi. léegi mbooloo. da ngay moytu quoi. ndax moom la gars yi def rek. ñun saaga nañ ko Macky Sall fii parce que wax nañ ko lu nekk moom am na droit ñëw wax la loi des contraintes rek ku nekk fa nangulee sa borom rek foofu ñëpp a bokk réew merci waay grand waaye ndax xamee naa la est-ce que bokk ñoom classe ko jàngee waaw ñaan waaw bon nag Sénégal mooy nii dañuy wax rek ñoom toog neen fa diin Djibril War booloog jàngit saaga Macky Sall saaga homme d'État yi saaga gouvernement bi yëpp benn waay taxaw bu tudd Bamba xeex ndax li waa ji waxoon Serigne Touba Alaaji Malick Limaamu Laay ñëw ne waaj kenn waru ko défendre ñoom ñu jàpp ko dóor ko ba bëgg ko rey léegi nag am ngeen benn moor yéen ñu organisé woon manifestation bi benn moor moo ni seen loxo voilà benn moor moo ni seen loxo te kaa bi tamit ko topp de dinañ ko topp principal la ñu jëm nii danañ ko gunge ba xam li ci xew yëpp parce que li may wax rek li nga ñuy li nga ñuy def ci dëkk bi jàpp ay premier ministre saaga ministre de l'intérieur ngeen saaga ba Sall ngeen saaga man dama koy def mais ku ma romb ci mbedd bi saaga ba ma xam ne da nga ma war a saaga mais du ma la dóor ñoom duñ doon def ni yéen duñ doon def ni yéen ah kon yéen tey doo leen ci taxaw di kaas nee ngeen Djibril War mbaam la bind doomu aadama jëmm doomu aadama respecté wu leen ko ngir jëmm bi ko yàlla jox digiteem ngeen koy tuddee mbaam ku leen wax waa ji du mbokkam waa ji xaadim la tudd sëriñ Tuubaa la ko tuddee waa ngeen fii defar dafa xas tarixa murit ne ay farmason nan tarixa yépp waa looloo ko metti c'est ça qui lui fait mal léegi yéen kenn du wax daal léegi léegi yéen yaa seen policier bopp yéen aar lu ñu bokk yéenay yaay ay yéenay seen policier boobu biiral ndey xale yi si réew mi ay Guy